رب العالمين مع العالمين والعالمين والغدا ذكر العالمين لك الكرم wa نسلم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه العزيز الذي لا يمسه إلا المطهرون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهاب إن الله كان عليكم رقيبا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين والقائل abxadu alxalaal inda allah attallaah wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi sawir ridwaani wa tamkiin wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu santee borom bi subhaanahu wa taala ci may gi ñu may ñu fekke waat bis kañ ko ci gërëm ko ci di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi ñu xàllal ngir ñi ban man jaar ma a jariñu ci àdduna ak alaaxira sant Sëriñ Tuuba baax gërëm ko moom mi tax ñu raw tey tey raw ëllëg ñi ngi lim mbokk yi fi teew yépp fu mbokk man di bàyyee ci gàttal muy mbokkum lislaam rek ko naan jàpp loxo di ko nii di ko asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu di jiital ci ñëw bu baax sëriñ Sidi Muxtaar xalifa am li taifatil muridiya di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala yàggal ko fi loolu te ko moom njaboot ak Serigne Touba di yëpp nit nunu di nuyu baax sëñ Mouhamadul Moustapha xalifa Cheikh Massamba Mbacké di ñaan sunu borom yokk ko wér yokk kattan ba li mu naan liggéeyal maamam bi baax de yoon mu tedd ba weexan ci toolam maam bi ci ëttub lislaam bi mu àggale ko ànd na ko njëbatu sëñ Massamba Mbacké jëpp nit noonu di nuyu baax sëriñ Cheikh Mbacke Mahmoudan xalifa sëriñ Mahmoudan di ñaan sunu borom guddal fanam wéral ko moom njabootal sëriñ Mahmoudan jëpp bàyyiwul ca kenn di góor di mag di di jigéen di nuyu bu baax njaboot sëñ Massamba ñi nga xamante ne ñoo taxawal li tey jii te ñu leen a xam ci sët yi mu mel ni ki na mbokk yi wax dëgg yàlla day mel la sëñ Tuubaa ñaan ñaan nga nangu na bu baax wa hab lana surriyatan tudiimu ala amal saalih ya qadiimu loolee ba ko sëñ Tuubaa ñaan jàpp naa ne kerkeraan yi ngeen gis ñu taxawal bi bu tedd bii woote seen woote bu réy bii ñoo taxawal Sëriñ Tuubaa di wax yàlla yàlla fay nañu ko waaye yàlla yàlla dëgëral seen yi nga xam ne ñoo taxawal lii mu mel ni kon ñi ngi nuyu baax sëriñ Daawuda loolu nga xam ne mooy imaamu dëkk bi di ko jox wàccuwaayam bi nga xamante ne moom la ko lislaam jox waaye moom la ko ëttub diine yëpp jox di nuyu baax kilifay àdduna yi fi nekk yépp bàyyi kenn nag waaye bala ñuy dem rek di sori ci biir di ñëw di leen xamaleek ki toog ci sunu wetu càmmoñ war a séq ak ñun jataay bi insha allah dañuy jox rek sëriñ xaadim moom sëriñ alaaji mu daal leeral dalal gan ñi waaye it soññi bu baax ñu ànd ak tekk ak dégloo ngir tomb bi ñu war waxtaanee maa ngi koy doori dégg man sama wàllu bopp tey ñu di ko waxtaanee ci confiance ngir itteel gi mu itteel jamono kon sëñ bi dama la jox rek nga nuyoo dalal gan ñi. aouzu billahi min seytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi mumtili rahmatihi المقصي الورى بواسع النعمات المعيد الأيام والمناسبات الرافع الأصفياء على كافة البريات وهو الذي قص بأنبيائه المعجزات وبأوليائه الكرامات واختار من صحبة الناس الهداة وكلفهم بإيثار الناس إلى جميع البقعات وباهوا أرواعهم لخدمة أفضل والديانات صلواته وسلامه على نعمة المهداة الذي قل صملس بالضلالات وجعله الفرق والأصداء وعلى آله وأصحابه القصاد المدوق الكفار والبقاد بالرماه حادة الأسنات وعلى قديمه التي دوخ الفجرة البقاد بالأخلام الجاريات عند الأسى الساخرات وسلم تسليما كثيرا mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba noo ngi nuyu mbooleem ñi fi teew ñépp ci turu commission culturelle bi nga xam ne moo nekk ci biir daayiratul muxsiniina wal muxsinaat yi lëkkale mbooleen sëti sëriñ Mahmoudan Jobe yi ci daayira boobu nga xam ne sëriñ Ahmadu Mbàkke radiyallahu anhu wa ardaahu moo ci joxe woon ndigal sëriñ Ahmadou Mbacké yal na yàlla fayal ñu ko dolli ay ngërëm ak i leeram moo joxe woon ndigal ci daayira boobu ci 2003 ba léegi si daayira bi di taxawee guddi gii ci waxtu wuñ tollee ci waajal màggalu kon ci biir daayira boobu ñoo ngi leen nuyu ci turu commission bi nekk ci biir di nuyu mbooleem gan ñi fi ñëw ñépp di leen dalal ak jàmm di leen wax ne ñëw ngeen seen dëkk boo xamante ne dëkkub sëriñ Mahmoudan Jobe la dëkk boo xamante ne sëriñ Mahmoudan mi ngi ko sos ci at yu néew a booba ci at yu néew la toll ndax bi mu koy sos mi ngi toll ci fanweeri at ak ñett rek te sama galaas bii ni ma koy waxee fanweeri at ak ñett bi samp kër rek ca la ñuy di kër kër yi te duñ mën a taxawal kër moom sëriñ Mahmoud am na ci njàmbaaram mu ñëw ci barab bii sanc ko te booba fanweeri at ñett rek la am kon ñoo ngi leen ci dalal ak jàmm te xam ne ku fi ñëw ku ne ni ko boroom dëkk bi daan waxee rek noonu lañ koy waxee ku fi ñëw ku ne day yëg nañ ne yëg nga ñu lool te jox nga nu yitte lool ndax dëkk bi sori na lool te jafe naa ñëw te yitte yi bari na xat-xat yi bari na gàllankoor yi bari na kon ku fi ñëw ku ne rek yëg nañ la ci suñu xol yàlla mi nga xam ne moo amul fay li ñuy ñëw ngir moo am yàlla na suñu borom fay leen te jéego yi ngeen ñëwee ak yi ngeen jàlloo yépp yàlla na suñu borom def ko tuyaaba ko te ngeen yàgg ñun ñoo ngi sant ñëpp di leen gërëm tey jii ñu tànn kenn koo xamante ne kenn la ci biir mbokk di Serigne Cheikhouna Moussa Thioulène ñoo ngi koy sant moom di ko gërëm di ko wax dalal ak jàmm ci sa dëkk bii nga xamante ne sa dëkk waajur la di Serigne Mahmoudane Diome ndax Serigne Mahmoudane ak sëñ Thioulène Moussa ñun dañoo xàmmee ci kër gi rek gis leen ñoom ñaar ñu xam sëñ Tumli waxtu mu ne mu ñëw ci sëñ Maam Waral sëñ Maam Waral di ñëw ci moom muy ay xarit lool mu daan yor benn Mercedes bool bool bu weex waxtu bu ne ñëw na ko gis nañ ko ci kër sëñ Maam Waral muy bëccëg muy ngoon muy guddi waxtu bu ne ñëw na te ñun booba dañ koy xam ay tànn lañ kon moom biñ ko tànnee mu ñëw nekk borom xam-xam ñëw tey li indi ab bind boo xamante ne am na yeneen borom te ñëw ci na suñu borom def ko muy njariñ te dem bi bu am solo la bu mat a déglu la ñu ngi koy ñaanal suñu borom defal ko ci ndam defal ko tawfeex te du guddal aw fanam wéral mu yàgg koo yeete yàgg koo jàngale te wax yàlla na doon njariñam ci mbooleem kay yépp ndax dafay mel ne waxtu li ñu joxe ko weesu nañ ko waaye nag nit moo demee noonu te barab bi sori sori boo xamante ne nii nit ñi bu ñuy ñëwee faaw seenu ñëw dañuy jànkoonteeg coono yoo xam ne bala ñu agsi te bu agsee day laaj ñu dalal leen loolu moo waral ñu xëcc waxtu bi ba agsi fii kon ñoo ngi jéggalu ñëpp rek di tënk foofu suñu kàddu di gërëm tamit suñu kilifa yi nga xamante ne ni ñoom bu ñu mënee taxawal lii ñoom la ñoo ngi leen sant bu baax di gërëm di ko tàmbalee ci suñu kilifa gi nga xamante ne mooy xalifa sëñ Maam Wadan di sëñ Seex Mbàkke moom sëñ Maam Wadan mi ñaan suñu borom guddal aw fanam wéral ay jëram lépp lu mu yéene lëggéeyal sëñ Maam Wadan yéene koo lëggéeyal sëñ Masamba maamam suñu borom dimbale ko ci kàttanal ko wéral ko ba mu man koo àggalee ndax nit ku rëy jëf la nit ku rëy yéene la nit ku rafet ab xol la nit ku ñeme njaboot la nit la koo xamante ne nii bu ñuy wax ci moom sax wutuñ ci seere waaye dañ koy dañ koo xam di ko di ko wax te buñ ko waxee ñun ñëpp danañ xam ne lu wér la ñoo ngi ñaan bokk yëpp di ñu ko ñoo ngi ñaanal ñëpp yàlla suñu borom fay mbooleem ñu fi ñëw ñëpp mbooleem yéene ñu fi indi yëpp yàlla ko suñu borom àggale jërë ngeen jëf ko salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kàddu yi jot na lool. amee mu mel ni ki ne rek mbokk yi ñooñu ñooñ ñaa xamante ne mooy sët yi taxawal bis bi wala wax bi waxtaan wu rëy nga xamante ne dañoo fas yéene kenn ku ci nekk boo fi jógee muy sa ngannaay nga fas yéene koo jëriñam Euh, loolu nag la ñuy doyee ak njaboot njaboot moom kenn ku nekk la bëgg mooy mu difi la waaye fam lay difee nag mooy ci bàkk bi nga xamante ne bi nga xamante ne moom nga ko xàllaloon kon yàlla sa borom fay ñu njaboot boobu nga xam ne ñoo taxaw loolu ubbi na jataay bi wax dëgg yàlla ba leeral lu am solo pas-pas ak pëstéef ak gëm-gëm ak dox bi nga xamante ne suñ ma sàmm suñ ma xamoon amoon na ko ci biir saytu dëkk bi xoolal at yi mu amoon ci saa yi li mu ndawe waaye ak himmatul aaliya li ñuy jàngale tey lu bare bare bare ci la sañtee dëkk bi tey jii ba li lépp xew kon ko kenn la mbokk yi yàlla yàlla fay ñu ko yàlla yàlla yokk ay leeram barkeb Cheikh Massamba Mbacké suñu Cheikh naa bu sa cumbuleen ñi nga xamante ne moo war a seq ak ñun jataay bi du ma ci sori li ci suñ xaadim xanaa leeral rek lenn ci ay barab yi nga xamante jaar na fa ngir bëgg a fexe ba li mag ñi yoroon ci wàllu xam ak xàmmee mu làmbaayoo bu ëllëgee comme saa tey bii jot ñu soxlaal ko mu taxaw man koo leeral ñu ngi ko baax di ko siyaare di ñaan suñu borom kàttanal ko ba lim naa la liggéey ci mawdu bi insha allah mu àggale ko Maodo itteel jamono lay waxtaanee ak mbokk yi muy asalbiyaat al ijtimaiya fii kasrati allah asbaabun wa xulul muy Maodo boo xamante ni jàpp naa ne mbokk yi ku teewlu ku nekk da xam ne lu mën a waxtaanee la ëtt bee ko soxla. fii ñu toll jamono na koo soxla mooy jamono dafa soxla ñu xamal ko lan mooy problème bi posé ci biir askan bi ba tax jafe-jafe yi am ci biir sëy di am lan moo ko waral tas bu bëri bi yooyu lan moo ko indi yooyu yëpp nag nga xamal ne moo tax tey jamono dem ba laaj mawdu bi moo tax mu bëgg leeral ndax jamono ji dëgg na trop sëy yi am jafe lool ñaari ba ñett da nga dégg ñu naan may woon nañ ko lu waral loolu moom insha allah dina ci indi ay leeral yan jafe-jafe la am yan moo ko waral waaye lan mooy solution yi nga xamante ne moom bu ñu ko insha allah rabbi yooyu mën naa réeru